الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وكن يريد ان يسال في سير تلفزيون ملكيا تي في فقط sama xarit Serigne sama xarit maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la wàcc sa wàcc waay di nuyu sëñ Mountakha Bassirou mais ca Touba ak mboolem njabootu maam rek ñoo ngi lay wàcc sa wàccuwaay ak mboolem xalifa généraux bu dëkkee ci diwaanu Sénégal gii rek maa ngi lay nuyu di la wàcc sa wàccuwaay Aïda di la delloo nuyoo di nuyu Chérif maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay yow tamit di la jox sa di nuyu Chérif Chérif maa ngi lay bu baax a baax. waa soxna Aïda lay delloo nuyoo. Mhm. comme ni faral di wax rek nuyo sunna la fay nuyo farata la eh, ñu ngi nuyu itam eh, sun téléspectateurs yi nga xam ñoy safo du sétane sen eh, télévision Malikia TV ci leer modo sen émission bi nga xam ñu ngi koy tuddé jamono tay bi nga xam ne day and ak jamono sa su ne itam ñu koy dëppale ak diiné sun téléspectateurs yoy ñu ngi leen di ñaanal euh du sàkk su ñom ñaan du ñaan yalla ubbi sun xol léral sun xel jubal sun lamine ba lepp luñ fi fas yéene waxtaanee si yaa Seyda mu nekk njëriñ bi nga xam ni euh, dana leen jàpp askan bi bu nuy teewlu incha allah. bu soobee yàlla Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow tamit di jaajëfal képp nga xamante ne yaa ngi toog fii ci seen émission bi euh, di jamonoy tey comme ni ñu ko commencé woon démb muy euh, suñu tam bi nga xamante ne teg nañ ko ci table bi muy émigration clandestine. tey nag moom la ñuy continuer fii ba jeudi incha allah bu subaa incha allah di ngeen am aussi ay reportage yu mucc ayib di ngeen am aussi yeneen invité yu nga xamante ne dañ teew ci plateau bi ñu gën ci waxtaan gën ci yaatal incha allahu taala su sobee suñu borom ba tax na rek comme ni ñu ko waxtaanee woon démb immigration clandestine yaa Seyda loolu la ñuy continuer tey incha allah bu sobee waaw macha allah taala loolu la ñuy continuer soxna Aida ndax loolu moom li ma waxee démb rek nii dafa jara wax dafa jara saytu dafa jara gëstu képp kàttan ak ko xool naka la ñuy defee ak xale yi nga xamante ne dañuy fay bàyyi seen réew mhm. di dem mhm. euh, il faut ñu euh, demaat ñaaxaat leen dimbaliwaat leen lu ci war rek ñu def ko rawatina nag euh, suñu gouvernement bi nga xamante ne ñoom la yàlla teg mbir mi ci seen loxo war nañ cee defaruwaat gëstuwaat xoolaat mhm. ban solution lañuy indi ba yi mën a toog ci réew mi liggéey ndax wax dëgg yàlla metti na ci xale bu xamul dara metti na ci koo xamante ne dafay nekk këram mhm. dafa am ay jafe-jafe ak ay coono mhm. di dund loo xamante ne ay kàddu surtout ay da kàddu yi nañ ko bàyyi xel dëgg la mhm. ndax xale bi nga xamante ne ci yow lay dimbalikoo boo xamante ne ay responsable waaw yaa Seyda dafa mel ne sa tel sa kii dafa am problème sa micro ma bàyyi Chérif mu développé. Mm. waaw comme ni ko yaa Seyda doon waxee rek euh, démb ñu ngi doon tàmbali waxtaanee affaire immigration clandestine dafa mel na lu si gën a euh, lu si mujj nii mooy am na gaal bi nga xam ni dañ ko gis mu am fanweeri. New yi nga xam yaq yàqu yaq go goo xam support pompier wa service d'hygiène ak marine nationale euh, wuñ sax jël gal gi téral ko su tefes gi ñu ñu wax ni xam ñu daal nak la leen def parce que dañu yàqu ba tass nga xam dañuy mujj du dajalé cër yi hmm. euh, te ñu ngi def te gogu defon fan fanweer néew gal bi ñaar témèr nit la won yeneen ñaar témèr yi euh, fanweer yooyu moo desante gaal gi ñu sa des dañ la loolu moo loolu moo mujj bees fii xam nga ñu ngi doon waxtaanee jamono yële sa affaire tas ak divorce mm-hmm. ñu wax ni ñett dem kasara yi moo bon dem te jaru ko mm-hmm. dem te xamoo foo jëm dem te fa nga jóge gën fa nga jëm mm-hmm. mais dafa mel na bu fekkee émigration clandestine mi dañuy wax ni ñett dem musiba yi moo bon dem te jaru ko dem te xamoo foo jëm dem te fa nga jóge gën fa nga jëm ndax loolu musiba la dem ba nga xam ne da doon wuti wax ma sax amoo li ngay wut kooku ñàkk la rek mais nga far jaare foofu ñàkk sa bakkan ba pare euh, gannaaw ñàkk sa bakkan lu gën a metti lu gën a metti mooy nga am ku réer xam nga ab néew sax boo ko amee sa xel ni kii kat dafa yàllaa ko def lu gën nga denc ko jébbal ko boromam ba tey rek def nga sa dëj nga sa dëj mais koo xam ne gisoo néew bi sa ngiiru dund da ngay jàpp sax euh, sa xel sax day nekk di werante ndax dafa réer rek dee naa ak deewul parce que dafa dem euh, feebar xel mi dem wala yooyu yëpp ngay nekk sa xel day doo doo toog dangay ngay am waajur yoo xam looloo gën a métti nga nga dee nga gis sa néew sax jox la ko nga denc ko xamni ni kat fii mooy bàmmeelam mais ko xamni def la réer yow wër la yow ba li si euh, dee gi dal mo gëna wër problème bi si xalé yi dafa am li nga xamni itam dafa nek ci ñom man seetlu naa ni dañuy wax ni jamono njëkk ji dañu daawoon nañu jël gaali wala dugg su bateau yu mag yi wala dugg sacc dugg sa avion yi ba pour dem bitim réew wala am fu ko jaar léegi nag boo gisee loolu gën a fës ñaar indi ñaar indi na ko Sénégal xale yi ñoo gën a bari recensement yu ñu def comme ni ñu ko waxoon keroog euh, am na 7 millions presque cinq et quelques cinq cent mille jeune yoo xam ne moins de quinze ans lañu ak ñi nga xam ne lu tollook 9 millions yoo xam ne moins de 20 ans la. daanaka population Sénégal population bu jeune la. te ñëpp xam nañ xale moom dafay bëgg juddu léegi màgg léegi tekk léegi comme ni ñu ko waxee démb xale nag moom ba day ànd ak mag lu sëñ Babacar si doon wax ne bëggul jataay xale boo xam ne mag bokk si wante bëggul jataay mag boo xam ne xale bokk si mais boo gisee ñaar jataay yooyu ñu mën a jàppalante xale xëy na am na kàttan wante mag mag am na xel hmm. te borom doole ak borom xel bu ñu àndee borom xel bee war a jiitu xale yi ñaar moo leen du dal Euh, wax dañuy dem te xam ñu fan jëm mm-hmm. maanaam xam nga tefes booy dugge mais xamoo fooy teere wala ñu xam fan jëm wante xam ñu ban yoon la ñuy jaar bàgg fa loolu nag euh, ka la jiitu këla gën a xam àddina moo la si mën a euh, dimbali gindi la mm-hmm. te xale yi itam danoo réer mm-hmm. danoo rëy te lu gën a jaaxal nit ñi da ngay gis koo xam ne dafa am su gaal goo xam ni téeméer nit lañu. Mhm. lu ma fukk nit mucc si. ñu woo ko laaj ko mu ne bu gisaatee suba ba ren gaal. day dem day dem. loolu lay wax waaw léegi nag loolu loolu. mën na ku leen xabtal kay. wallaay mën xabtal. Mhm. waaw man dama ragal ne am na daal xam nga ku nekk am na ñu koy da ngay gis bu xaabay di wax dafa am ay jënd yi nga xam ne dañoo moom xale yi. Ah, mais fu mu nekk ah waaw parce que lu ñuy wax ni euh, parents yi moo leen pousse comme démb bu ñu ko waxee rek. Mhm. am na wàllu yenn parents yu nga xam ne dañuy sas seen doom ba seen doom gis seen bopp. Mm-hmm. bëgg def loo xam ne après musiba la. Mm-hmm. mais am na seen doom xale yoo xam ne itam du ñu yëg sax yëgug seen waajur yi. ndax bu ñu yëgug seen waajur yi. Mm-hmm. Euh, euh, du ñu dem. léegi nag dem pour dem. dem dafay tax dangay ngay da ngay xam lan moo la lan moo la demloo ak fan nga jëm. bu dul loolu nag. dem du ko jar. ndax jàpp yoon te xamoo foo jëm. Mhm. wala xam fi nga jëm te am xamoo ban yoon ngay jaar ba àgg fa itam. loolu dëgg loolu bokkul su su su li nga xam ne ba wóor na daal. dëgg ndax avion sax bu jógee Dakar war a dem euh, Paris. Mhm. avion bi day am plan de vol. Mhm. dañuy wax ni fii la avion di jaar fii la jaar bato itam buy jógee fii bëgg dem. Amérique mhm. dañ am plan de navigation dañ naan fi la ñuy jaar fi la ñuy escale mhm. mais dugg ci ben tefes rek surtout lu gëna graw garaaw de da ngay gis gal bo xamni euh, juroom fukk nit la mëna nek def ñu def ci 20 téeméeri nit wala 25 juroom juroom fukk nit mo def ñu def ci ñaar téeméeri nit allahu akbar euh, te te xolal imaginer tay mhm. euh, parce que dugg gal gi amna yu bari war nga ko xalat ñu ñu bëgg dem touri ndox ñu bugg dem dankali ko ñu bëgg tëdd wallaay euh, gaal bi day mel na yenn kaso yu ñuy wax paquetage bien sûr maanaam dañ leen tàncat ba nga xam ne yow waxuma sax tëdd gestu sax doo ko mën a def boo leen gisee boo bëggee tuur ndox ak waaw et puis nag lu gën a garaaw comme démb nañ si wax ni léegi ay xale dañ siy dem xale yu nekk école 14 euh, ans quinze ans ay jigéen ñu uuf seen doom yoo xam ne ñu ngi nàmp feragunu ay ay jigéen ñi am euh, vingt ans quinze ans dix-sept ans da ngay gis gaal yoo xam ne sax jigéen ñi ñu ëpp góor ñi. aywa lu ko fi jar euh, léegi. Mhm. comme ni ma wax démb. Mhm. war ñu jéem a jàpp rek ñuy yóbbu nit ñi. Mhm. mais war nañu woo itam ñuy dem. ñu laaj leen lan moo leen dem la. wallaahi parce que loolu itam baax na nit ñi xam ko. du nit kii da dañ ko génn su gaal rek wala mu mucc ñu delloo ko këram. te wow ñu ko laaj ko lu tax parce que bu dee bitim réew xale boo xam ne dafa bëgg xaru. daan la woo yóbbu la si docteur yi nga xam ñooy seetu xelu nit mm-hmm. parce que xel day feebar mm-hmm. xel day feebar léegi nag xel dañ la wax ni yow kii kat baa ngi dem kii bu fekkoon tey dañ fukki fukki xaaj lañ ko def yow wër na la juróom-ñetti xaaj yëpp sa bakkan dana des géej mais sa xol moo dul déggu sa xel mm-hmm. sa xel dañ la wax ni lii ngay def wóorul mais sa xol moo lay yóbbu ba nga eh, nga def naka si dul. doy na waar Chérif. daal mbir maa ngi noonu yaa seedaan. doy na waar doy na xam nga fi mu daanelee rek foofu laay jëlee waat. Mhm. Eh, ndax wax dëgg yàlla eh, li ma wax sànq rek nii war nañoo saytuwaat ñu xool lan la lan moo xew. lu mhm. xew ndax euh, li loolu nag nag responsable yi rek ñoo ko ñoo ñu ci mën a dimbali. ah doy il faut ñu jéem a xool ñi nga xamante ne dañoo dëkkee ci réew mi. Mhm. doon ay responsable yor mbooloo moo xam mhm. sëriñ si la. moo xam ñi nga xamante ne ay jàngalekat lañ moo xam ñi nga xamante ni ay borom xel lañ. ñi nga xamante ne ay sociologue lañ. Mhm. jar na sax ñu ubbi ay école dugal ci xale yi. delloo si leen mobiliser leen. Mhm. ak parents yi nga xamante ne surtout ay da parents yi nga xamante ne. Mhm. ñoo nekk ci biir kër yi. li ma wax démb nañu takkaat seen ceinture. defaat seen laxasaay. Mhm. woowaat seen njaboot te nag dimbali njaboot gi nag. ndax léeg-léeg ayda nit dem dem boo xamante ne li ñu naan demu kasara. ak demu xamatoo fooy teg sa tànk xamatoo nooy def. ndax bu fekkente ne ci wàllu nasaraan yi la. ñoom am nañ benn euh, pédagogie boo xamante ne. Mhm. bu ñu gisee nit koo xamante ne dafa xel mi dafa xaw a matadi. Mhm. ñu xool lan la gën a mën. dëgg la ñu jàppale la ci loolu. ndax léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne seen xel day xaw a dem boo demee ñii dañuy mën ordinateur. Mhm. ñii dañuy mën liggéey bi ñii dañuy mën liggéey bi donte la nga gis ñoo xamante ne sax du ñu mën a wax. wala duñu dégg bu baax. wala euh, seeni cër euh, du demee noonu dañuy nekk ay handicap. mais dañ leen di jàppale. mais loolu tam war nañ ci veiller bu baax ndax ndaxte euh, ci bu dee ci te loolu l'islam moo ko moom mhm. bu dee l'islam da ne carrément képp koo xamante ne nit la rek mhm. même bu nitewul sax da nga koo war a xëcc nga teg ko def ko nit ndax suñu maam maam Cheikh Sidil Hadj Malick radiallahu taala anhu mhm. kat moom dane balaa ngay tabax daara wala ngay tabax ecole da ngay da defar nit ba pare boo defaree nit nag daal di ut sa euh, ab jàngu teg ko fa di ko jàngal ba mu nekk nit loolu da ciy am solo mhm. mais lii xew léegi ni ñuy naan ay jinne yi la d'accord mën nañ leen koo jiñ parce que mhm. alquran dane wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li nii mhm. damaa bind jinne ak nit ngir ñu jaamu ma ndax yàlla dafa bind jinneem bind ay nitam te nag jinne ak nit du benn mën nañ ko jiiñ jinne yi waaye nag ayda man mën naa ko jiiñ jikko mën naa ko suñ jikko parce que nit bu fekkente ne defaruñu jikkoom dina nekk ku bëggee dina nekk ku añaan dina nekk koo xamante ne lu mu gis rek defe ne ni moom moo ko war moo ko yelloo te loolu mhm. euh, ñu defaat jàngat mhm. génne ci bopp xale yi yenn yi mhm. ak ñi nga xamante ne ñooy ñëw di mujjee juddu ñu defaraat leen dafa baax il faut ñun nga xamante ne ñooy yaay yi wala ñi nga xamante ne ñooy papa yi dëkk ci biir kër yi nekk ak njaboot gi foog ñu am benn comportement boo xamante ne doom ja da cay xool ba doon royukaay ndax su fekkee ne dangaa nekk ak say parents liggéeyuñu goruñu yettuñu defuñu dara ñi ngi la bàyyi noonu mhm. nga dem ba nekk majeur te xale yi léegi dañoo yeewu mhm. te lépp dafay dox ñu daal di am vision bëgg li seen moroom yi bëgg mhm. xool li seen moroom yi am yow dimbali woo leen ci jàppale woo leen ci ndax yow jéemoo dara danga ne rekk Euh, yàlla baax na. Hmm. waaye yàlla yàlla bay sa tool. yàlla yàlla bay sa tool nit il faut nga nekk koo xamante ne da ngay am xel. Hmm. jéem a defar li nga xamante ne moom la la yàlla jox. Hmm. nga jéem koo defar ba ëllëg. boo ko tegee ci loxoom doo am sa ci kanamam te gis nga soxna Ayda jullit bi war na bàyyi xel digganteem ak boroomam ndax bu dee njaboot gi mhm. yàlla daf ñu koo dénk mhm. te bu ëllëgee dinañ ñu ko laaj ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi naan kullukum raain wa kullukum mas'ulun an yi mhm. kenn ku ne sàmm nga ca la ngay sàmm dañu lay laaj naka nga ko doon sàmme man léeg-léeg ma ne xale yi mais lu ci ëpp man parents yi laa koy jiiñ mm. ak ñi nga xamante ne ñooy responsable yi nga xamante ne ñoo jiite xale yi mm-hmm. ndax ki nga xamante ne moom moo la bëgg mm-hmm. boo ko nee jaaral fi mu jaar fii mm-hmm. il faut ñu won leen yoonu liggéey il faut ñu yokkaat usines yi il faut ñu defaraat réew mi loolu nag moom suñu euh, gouvernement bi rek laa koy euh, teg mm. ndax ñoom bu fekkente ne xale yaa ngi dem immigré clandestin am nañ ci part de responsabilité. surtout ndax bu fekkonte ne. Mhm. ñi ngi saytu géej gi. Mhm. xool bato yi dem. Mhm. ak gaal yi dem waaw ma ngoog di di saytu di xool mu jaral leen lu nekk. parce que léeg nga toog fii gis tali bi. alkaati yi niñ ko lëmbee macha allahu taala bari ci. oto bu amul këyit ñu def ci jàngat. oto boo xamante ne war naa daw ay nangami at ñu def ci jàngat. kon loolu ndegam ñi ngi koy def ci tali bi ci mhm. circulation bi nga xamante ne ci la ñëpp di dem mhm. kon yoonu géej gi tam kazaalika war nañ cee taxaw mhm. defaat ci ay jàngat yoo xamante ne képp koo xamante ne yor nga sa gaal di napp def nga naka dul noona di jël ay doomi jàmbur ñu di la jox alal nga di leen yóbbu immigré nga bañ koo ah, seetaan nga jël leen téye nga jël leen téye ba pare euh, ut ay euh, hmm, ñoo xamante ne mhm. dañuy saytu géej gi di xool mhm. ñi nga xamante ne dañoo jël gaal def ci xam nga ni benn gaal wallaahi téeméer nit loolu jaaduwul doy na waar doy na waar téeméer nit loolu jaaduwul des faa nga réer nekk ci 10 jour nekk ci 10 jours wala ay 15 jours mais jaaduwul te xoola xoola te dañuy dem mhm. bu ñuy demee ba foofu du ñu ñëwaatee dañu naan damay delluwaat. ci saa si. ci saa si ba pare duñu la wax la fa nekk. te comme ni ko Chérif waxee nii gis nga tegle boobu. Mhm. man xool naa tuuti ci réseaux sociaux yi. waaw gis koo xamante ne mi ngi wax mu ne. Mhm. benn gaal ku ci dee dañu lay sànni ci géej. ah bien parce que dañuy mu ne gaal gi dañuy dem ba lépp fa lañ koy defee. xam nga ni gaal. nga dem ba bëgg a euh, tuur ndox bëgg dem ba tuur dugub defe ko foofu te nekk ak ay nit te nga amoon sa néeg fii mm. am sa situation mu neex boobu ni mu méttee macha allah sept jour xam nga ne ci yoon ak géej ak géej ni mu garaawee géej ni mu garaawee brise de mer rek la fay xew yëpp sedd béeg lépp lan moo ko jar kenn xamu ko lan moo ko jar moo tax nag euh, ayda fokk ñu toogaat defaat ci jàngat bu baax a baax a baax mm-hmm. bu dee ay euh, bu dee dañu ni jinne mm-hmm. ah man de sama xel euh, wax dëgg yàlla ci li mu xalaat. Mhm. fii bari na ñoo xam te neen dañuy faj jinne <laughs> bari na ñoo xam nee na ñoom dañuy faj ay jinne waaw ñiy faj jinne dañuy dimbali boog suñu njaboot yi dem ci gaal gi ñu bàyyi ko bu dee jinne yee koy def masha allah taala doy na waar daal ah, yaa doy na waar lii noonu nañ ñu dimbali wallaay dañ ñu dimbali ba tax na ma joxe numéro serveur vocal bi pour euh, téléspectateurs yi nga xamante ne bëgg nañu participer 78 77

en général ñi ci prononcé wu ñu tuuti lay doon ñu mhm. minime lay mhm. doon te boobu boobu da ngay takk sa fit rek nga dem ko parce que c'est entre eux dafay xool benn quartier jeunes yu bëri dem te ki koy tëgg ci biir quartier bi la nekk di leen fréquenté ñoom ñoom ñuy ànd di añ di reer di ndekkeen yu def yëpp da ngay yow suba rek ñun la gaal gi dem na te doo ko yëg am na ay parents yi nga xamante ni foofu ci diwaanu Mbuur dañuy yow suba rek ñu leen ñuy laajte seen doom ñu di dem na loolu lañ ci am loolu lañ ci am am na nag ñu nga xam ne comme ni ma ko waxee woon démb ñoom ñooy jël seen doom yi inscrire leen wutal leen dem leen verser leen xaalis ni leen dem leen. seen yaay ñooy ñooy teggi tontine wala seen i bàjjan. waaw. Euh, xam nga mbir boo gis rek. Mm-hmm. dañuy wax ni jàngoro bu am rek. Mm-hmm. am na lu ko saafara. Mm-hmm. man sama xalaatu bopp. Euh, jamono dafa toll ni euh, Sénégal ak développement fi mu toll nii. war nañ wut tefes bu ne. Mm-hmm. ñu wut fa tour de contrôle. cheikh Palma ma jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salam wa rahmatullah señ bi ma ngi lay nuyu. ma ngi lay nuyu bu baax. Oh, ma ngi lay nuyu bu baax tour bi naka la. wa tour bi naka la. Aline gay Saint-Louis. ah Aline gay ma ngi lay ziar bu wër fan nga may woy ci Saint-Louis. waaw na nga bëggal Gendar Gendar. Ah, waaw foofu moom macha allah ani waa sanc ba ak waa goxu mbaaj. nawet ñëpp a si jàmm. maa ngi leen di bu baax <laughs> euh, sëñ Alioune. waaw waaw waaw waaw da ngeen bëggee télé bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waay. Gendar Mboor daanaka moom la ñuy seetaan. waa ani ani ani sëdde yeeg yi ani jën yi. ah jën amagul de. ah jën amul <laughs> mbaadu géej gi dafa yëngu foofu. wala wala géej gi sëmb. non non non géej gi peut-être yëngu nag miin. ah période eh, yëngu mi ngi ci yoon. ah mi ngi ci yoon. ni ko man géej simb la kii moom géej simb la bëgg Chérif. man ko teg si pax. waaw dama bëggoon participer tuuti rek. <laughs> waaw yaa yaa si biir yaa ngi si biir yaa ngi si biir gay. waaw le ka mhm. immigration clandestine bi. waaw naaw feebar la. Mhm. te ñi koy def naanam dañu découragé. Mhm. découragé noonu lool lool lool lool lool lool. ndax réew mi dafa métti. dëgg la. kenn yaakaar gu tas la. bu fekkoon ne ne maanaam ñi nga xam ne noonu jiite. Mhm. xelaloon nañ njiit bi. Mhm. xëy na amaana ni tas ya tas yaakaar gi mu du ci am. Mhm. mais réew mi mel na Sénégal. li fi nekk ci loolu ak abri provisoire. kenn xamul mu toll. su ma soo xëyee da laa dégg ñu naan la jiw sàcc na milliard. Mhm. te du doon benn ay lay doon ay. ay ay lay doon wallaay ay lay doon. te du doon benn ay lay doon. wallaay dëgg la wallaay signalé. te benn milliard boo ko tuuree ci gox. Mm. amaana ni abri provisoire ma na fa jeex. wallaay la wallaay wallaay. benn milliard boo ko tegee ci gox. amaana mm. ni nit ñi bu ñu feebaree daal mën a faju. wallaay ndeysaan wallaay dëgg la. xam nga loolu yëpp feebar la. feebar la feebar la billaahi. xëy na bu nu yàlla dimbalee nag suñu jiir yu nu amaat nii. Mm. xeyna bu nu dimbalé waaw. it maanaam jubbantiwaat yoon yi. waaw. xeyna do na tax réew mi. wallaay suñ ko bëggee. deug la deug la deug la. xeyna do na tax réew delu suñ ko ma sha allah sëñ Alioune sëñ Alioune. waaw nanu dolli ñaan rek nanu doli ñaan. yalla baxna na mën na am sax seen bël ba yalla defal ko ndax yàlla mi ngi lay bàyyi sa ruug yi. dëgg la dëgg la. sax hmm hmm waaw yàlla na yàlla dolli sutura. jere sëñ Alioune nuyu ma wa Gendar yépp deeng nga

ñoom 4 jour sax duñ ko def ci géej gi mais dangay gis jeunes yi dañuy yeewu suba dugg ci euh, ci euh, géej gi mhm. napp ay jën ay maanaam jàmbaar ñoo fa nekk amul tëdd yow naan ataaye. wallaay euh, sa café amul troisième quart. liggéey rek xam nga troisième quart amu fa troisième quart fa waaw. xam nga géej. Mhm. ndeysaan dafa am way bu ñu doon wax. Mhm. moytu leen géej lu muy rëy rey saxaar jéeri du fa daw. lu dul gaal fa daw. te borom la ko xam. Mm. saxaar jeri moy auto wallahi manam lolou lañ bëgg wax. Mm. légui eh, réew bo gis nak dafa wara am organisation bu xamni ni dafay ànd ak jamono. Mm. gis nga fep fu nga xamni auto oto fay joggé du dem dëkk day am garage. am chef de garage. am coxeur. tefes gi itam lolou war na fa am. deug la auto bo gis nak am na numéro. immatriculation auto bo gis itam amna nombre de personnes yi nga xam war nañu dugg su gal loolooy deug léegi état dafa wara def ni. Mhm. ku nek tabax boy defare gal waaw gal bu nek ñun la nangamu nit mo fi wara mëna ne. Mhm. Gal bu bëgg nappi ñu def lu obligatoirement. Mhm. Euh, ñëpp nombre de personnes yi nga xam ñu ci gal gi nañ am gilet de sauvetage. Ah. parce que lolu moy doxal rew léegi gal bu nek itam mu am ben poste. euh balma cheikh ndiek serigne bi allo allo oui oui salam salaamaaleykum Wa sëñ bi ñu ngi lay déglu tour bi naka la ak fay woté Wa ma ngi woté ci kër Mor Ndiaye kër Mor Ndiaye kër Mor Ndiaye Mor Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax tour bi naka la Abdoulay Niang Abdoulay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaay ngi ci euh, jamonoy tay noo gisé tém bi tay wax na ñu ñoo ngi lay di nuyu bu baax ñu ngi lay fay ñu lay fay bu baax. Euh, xanaa di sant yàlla bu baax te di leen sant bu baax ci émission bi. jërëjëf jërëjëf. Euh, di ñaan ci mbaaxu yàlla yal na yàlla gën a dëgëral ko te gën koo leeral ci barke Serigne Babacar Sy. allahumma amiin waaye allahumma amiin amiin amiin. Euh, mooy télé boo xam ne moom télé bu am njëriñ la boo xam ne yàlla ñu ko indi rek ci barke Cheikh Sidi Hadji Malick. macha allah macha allah jërëjëf dañ ciy sant yàlla bu baax te di sant émission yi ngeen di doxal. alhamdulilah jërëjëf waay. ndax ndax ndax tele boo xam ne émission boo ci boo ci seetaan te teewloo rek te te te teewloo rek da ngay émission la boo xam ne bu am bu amal njariñ askan wi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mooy am njariñ bu ko defee nag xam naa ci li ngeen di waxtaan. Mm-hmm, mm-hmm. ci li nga xam ne mooy euh, euh, Sénégal ak euh, ni muy doxe mm-hmm. boo nekk na di loo xam ne moom euh, ci génn léegi leen ci génn leen ci génne rek moo ci nekk yàlla nañu yàlla bind leen mhm. ba suñu njiit yi day ci ñoom ñoo fi nekk mhm. amiin yàlla dogal ñu ñu nga xam si moom lañu moom la moom la bëgg a def ci réew mi ndax kenn ku nekk ci ñun teelu na gis na ni euh, euh, li fi jaar ba jàll moom wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne céemaan na. Mhm. yéeme na. ndax réew moo xam ne fii euh, wax du yàlla da ngay mën nga wax ne ñëpp a sonn. Mm-hmm. te boo tànnee ay quelques personnes ñoo ci tudd ñu ne la jël nañ euh, un milliard deux milliards huit milliards dix milliards mais dafay da ngay dem ba yow affaire bi dootoo xam lan la ñuy daal. day mel ne ay gént ci yow. wallaay dëgg la. voilà tellement que mm-hmm. euh, milliards da du caaxaan. Mm-hmm. donc képp koo xam ne yaa ngi am fitu jël ko ci ci ci ci li xam ne mooy alalu askan wi. yow dañuy jàpp ne yow nit nga koo xam ne kenn warul ci laa tudd ci ñi nga xam ne ñoo ñoo bokk ci réew mi parce que yow bokkul ci réew mi. Mm-hmm. dëgg la. waaw parce que parce que milliard ci ci am réew. Mm-hmm. yanu ko ñu naan benn ñaar ñett bi jim ko kenn xamul fu mu yu am. Mm-hmm. loolu jaaduwul. donc nekk na di mbir moo xam ne wax dëgg yàlla suñu autorité yi yàlla na leen yàlla dimbali ba nga xam ne ñoo. ñoo ñoo sàcc ci milliards yi année askan yi yàlla bind leen ba ñu gis leen jàpp leen te ñu génne ko. amiin waay amiin yaa rab amiin amiin ñu génne ko parce que génne bi mun ko ñàkk. Mm-hmm. parce que ñu mun ñoo ko di léegi mm-hmm. dëgg la. Mm-hmm. te te dara du ko defar nag lu ab xaalis xaalis boobu ñoom nga xam ne donc Sénégalais yi ñoo ko dajale. Mhm. ñuy jaay caaf ñuy jaay guddo ñuy jaay soppi. ñëpp ci am mhm. Mhm. ah. ñëpp ci am ñoom ak ñeneen ak ñeneen ñoo ko dajale ci ñaar dërëm fukki dërëm ñu dajale ko. benn nit bëgg na ko coppet lekk ko. depuis temps Senghor ba léegi ñoo ngi fi te dara doo ko fi loo xam ne si mën nga ciy teg lu lu am solo. dëgg la loolu mënta nag mënta nag. dëgg la lay dëgg la. donc les sociétés daal bu ñu jóg ci li ñu nekk. Mm-hmm. nit ñi nañu mm-hmm. ko lekk ñu ñu lekkul dañu dem jàpp seen jàmm. Mm-hmm. mais ñu lekk nañu génne xaalis bi bu ñu fa toog jël ay milliards de ko denc ci réew mi mbaa ñu yóbbu ko ci ko denc. ñun ñu nekk ci am góor bu dul jeex mën ta nekk. wallaay dëgg la wallaay wallaay jërëjëf. jërëjëf sëñ bi euh, façon. gis nga <laughs> daggumal sax. téléspectateur bi dafa wax wax jo xamné mhm. sank ba légui mu ngi sama xel sañ mako tudd moy ndol mhm. ndol mag ñu xam nga tax ñuko daan bañ tudd. Mhm. ñak dafa wuteeg ndol wallahi ndol moy nga dem ba ndox bo naan amatoo ko. amoo dara. dem ba nga xamné jamono bu ndan wax ndol deug nit ñi dañ doon xëccoo jur gi. rakal yi nga xamné mo doon dundal jur gi. nit ñi dañ ko doon xëccoo ak jur gi. wallahi ndóol ah, mooy dañ daan dem ba nga xam ne mhm. euh, euh, keccax yàqu keccax yi mhm. buñ ko tànnee mhm. nit ñi dañ ko doon lay du ko safale seen cere wallaahi ndax amuñu luñ safale seen cere ndóol mooy jamono bu nga xam ne nit ñi dañoo ñàkkoon am luñ sol ba nga xam ni xar sànni xam nga luy xar sànni mooy lan saaku ceeb yu njëkk yi dañuy bëtt si digg bi ñaari cat yi ñu xotti pour sa loxo yi mën a génn sa bopp bi mën genn mhm. nga sol saako bi lool moy mom la ñuy tuddee xar sànni loolu mooy ndóol Sénégal xam nga fi lu ñu toll ni mhm. lu tax Sénégal metti mhm. ñaar moo tax mu metti euh, Sénégal metti na ndax faqiir yi ñoo ëpp miskini yi dëkk boo ko ne koo xam ne mënul mënul yalwaan wallahi amna kër am na euh, soxna bu ngi yore juróom ñaari weer luwaas wallahi fay ko domam febar na mm. amul won lum ko joxe mu reere demb mm-hmm. ba mu xeye amul fukk dërëm bu mu ko 100 francs yum ko jënd le fonde mu lekk mm-hmm. la sa mag nak pass bu mu ko yobbo ak euh, consultation bi ak garab gu and ak lool nga xamni da ngay gis nit ku dé du febar bi mo la rey ñàkk am fajo wallahi mo la rey man damay dem tribunal karo diggante 9h ak 10h. 9h 10h ba 13h. Mhm. juge bi euh, expulsé na lu mat ñeenti téeméeri nit génn nañ leen seen kër nag am duñ fay nga xam ni kon. ci kër yi. Euh, maanaam ñu euh, am problème location. diggante 9 10h ba audience bi commencé ba 13h juge bi day day génn ay. nit Chérif Baal ma ma jël kii bi allo salaamaaleykum allo. dafa mel ni dem na waaw. waaw léegi nag réew mi nga xam ni tey. Mhm. da ngay gis benn nit aakimoo loo xam ni ay junni nit wala million nit ñu ngi koy def. jaadu barki démb wax naa ko démb kii ministre de l' enseignement supérieur dafa ni moom université virtuelle maanaam ñoo xam ni dañuy jàng am bu ñu amee connexion dañ leen jàngal sa ordinateur pour juróom-ñaar fukki junne élèves étudiants mooy soixante un milliard cinq cent millions moo leen manqué pour ñoom ñu mën a connecté pour ñu mën a jàng léegi nag nga gis ni benn banque koo xam ne luubal na cinq milliards xoolal wala dix milliards ba boole si nag euh, euh, gis nga luubal googu mhm. nga xam ne am na su réew mi te loolu kenn mënu ko weddi mhm. nga xam ne da ay Prodac mhm. nga gis ay trente neuf milliards yoo xam ne kenn mën la wax ne trente neuf milliards yi lii lañ ci def xoolal xaalisu Covid dëgg la junni milliards. Hmm. am na ñu dee Covid xam nga lan moo leen rey amuñu woon oxygène su hôpital yi. am na ñu ñuy opéré wëñ gu ñu leen di ñëwee amuñu ko. wallaahi. am na ñu leen opéré. Hmm. lu leen du nelawloo. baal ma chère ñu jël ci ligne bi allo salaamaaleykum. si maa ngi ziar. waaw yal na yàlla nangu ziar man itam maa ngi leen di ziar. dëgg la tur naka la fa ñuy woowee. maa ngi dëkk ci waawoon. ah tur bi naka la yaa say dàq de kii da la xàmmee na la maa ngi ziar wér soxna si. moom dafa dafa rek muy xàmmee sama baat. macha allah macha allah dañoo yàgg. lu yàgg dëgg la. noo def. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah sant bu baax a baax. <laughs> soxna Aida yow itam noo def. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah soxna Daba kontaan bu baax a baax. yow moom yow moom yow moom sa maam la sa wallaay dëgg la wallaay. yow sama sët nga. wallaay ndeysaan soxna Daba maa ngi ziar wér wér. man ngay sama bàjjan. Euh, chérif tamit sama doom la ndax soxna Fatou si moo. waaw wallaay ndeysaan <laughs> fii daal ñëpp nga am si incha ñu ngi lay dalal bu baax ci plateau la ñoom ñëpp xam naa leen. macha allah allah. macha wér wér di dalal. wane ñu ngi ñu ngi kontaan ci seen émission bi di ko rafetlu bu baax a baax. jërëjëf mm-hmm. jërëjëf di leen ndokkeel ci weeru gàmm bi ñu génn ci seen taxawaay ci liggéey bi ngeen liggéey fii ci Tiwaawoon. jërëjëf ak ni ngeen koy liggéey ci Sénégal. Mm-hmm. jërëjëf. yàlla yàlla yokku leen. alhamdulilah fan ñu bokk. amiin amiin amiin waay Kébé Sam amiin. man dafa am lu may laaj rek dafa am lu ma bëgg a laaj tuuti rek ci Sénégal Sénégal kañ lay neex. kenn xamul. Ah, Sénégal kañ lay neex. Mhm. loolu laa bëgg a laaj ah. Sénégal am na ci mu metti lool lool lool mhm. lool. ñëpp la metti ñëpp instant bi nii li mu metti. Sénégal ci tenente na de. ah doy na waar. léegi dafa mel na dëkkum pëccëxoo la doy na waar. doy na waar. man démb dama yónni benn xaleel. Mhm. ci bi mu jënd benn sachet benn café. Mm-hmm. boo xamante ni mi ngi doon jaay jar cent franc mu ma deux cent vingt la. Mm-hmm. waaw mu jënd ci ñett. Mm-hmm. pour la ci jënd rek na waa te baadoo amu ko. kañ lay neex lay laajte. man Sénégal dama ah, laaj. doy na may laaj nag ñi fi nekk président mu di Jomaay. ak man de ku tuut laaj ci réew mi duma dara. maa ngi leen di ñaan daal ñu taxawu réew mi nag. sonn nañu. sonn nañu taxawu réew mi nag ba réew mi nekk réew moo xamante ni. Mhm. dinañ delluwaat nag ci réew moo xamante ni nit ñi dinañ am dund gu neex nag njaboot gi ñu mën leen a jox añ réer ndékki. wallaahi loolooy dëgg am nañu ko amul nag am nañu ko amul de. wallaahi dëgg la man yàgg ma ni. Mhm. réew mi xëy na. ni mhm. li ñuy doxale ni nan ko doxale yër maa ne amul. am na ñoo xamante ni li mu yore dafa bari ñu tëdd ci. wallaahi. amuñu ñoo xamante ni amuñu lu nu lekk amuñu lu nu naan. doy na waaw am na de. waaw loolu président Diomaye. premier ministre. réew mi taxaw leen ci. dañ ci taxaw insha allah bu sama yàlla yërmande am waaye ñëpp yërmande am. walaay yërmande walaay affaire yi saawaan baawaan. yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam bi ko di yónni yërmande moo tax mu yónni ko ci mbir mi. waaw. doy wa kon ñoom itam. fi nu fekk réew mi nan fi taxaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm. incha allah réew bu liggéey amee xale yi bu mu mënee liggéey rek réew mi dafay neex. dafay neex wallaahi. waaw xale yi nan leen dimbali ci. liggéey ci réew mi ñu bañ a demati di tukki ci mbëkk yi nga xamante ni metti na. metti na wallaahi metti na mm. metti na dafa metti réew mi dafa metti. dafa metti ci mm. taxaw dëgg la daal lay ñaan man. jërëjëf kilifa diine yeeg ñëpp nañu wax nag ñu taxaw nag ci réew mi. wallaahi réew metti na nag. wallaahi mm-hmm. soxna Daba jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax. loolu daal laa am. jërëjëf sama xol tooy na trop. wallaahi ndeysaan wallaahi wallaahi jërëjëf dafa yërëmtalu dafa yërëmtalu soxna Aida soxna Daba dañ koy jaajëfal bu baax mm-hmm. rakk Pape Makhtar Kébé mm-hmm. la macha allah paam Pape Makhtar Kébé ñoo bokk benn papa ah ñu ngi koy nuyu bu baax kii sama sama bàjjan la ñoo bokk benn baay ak ñoom euh, Ndeye Fatou Kébé yaa Seyda ñoom Tidiane Kébé ñoom ñëpp la bokk macha allah macha allah papa yee bokk dëgg la dëgg la nga xam na ma bu nee tante liisu nak de <laughs> bokkoon di jàng daara sëñ Aliou Niang li moo ci neex presque ñëpp ay mbokk lañ ñëpp ay mbokk la moo tax lu rafet rek moom moo war a am nga xam ne moo war a am parce que moom ni mu waxee nii mhm. boo ko di nga xamante xolam jeex na ah. gis nga Chérif c'est vrai que c'est pas une raison Mhm. dama bëgg wax nii c'est vrai mhm. que c'est pas une raison mhm. mais metti na nga yeewu suba gisoo sa yaay teg cin ci biir kër nga yeewu suba gisoo sa yaay amul sax lu mu jënde mburu nga yeewu suba seen courant ñu coupé ko nga yeewu suba gaz ba jeex nga yeewu suba ñu coupé ndox bu boobaa yow boo gisee benn gaal buy dem tu es nga dugg parce que xam nga lu ñuy wax dañ naan la sax léegi da ngay dem ba yegg soo liggéeyee doo koy fay loolu la ñuy wax xale yi jeunes yi ci boppam dañuy bëgg liggéey. Mhm. mais it ñi nekk ci tali euh, bëgg gor. waa te amoo si loo gor. te amoo ci loo gor. xoolal réew mi dafa ndóol c'est-à-dire. dafa ndóol soxna Daba lu mu wax. fii ñu toll nii Sénégal. Mhm. sak ak suturam moo fi ne. ah ña daan joxe. Mhm. bu nu amut leen la ñu joxe. wallaahi ña daan nangu kon fu ñu jëm. xam nga li jaaxal mooy sax Chérif. Uh-huh. yow booy jël sax alal réew mi nga dugal ko ci li positif. mais denc ko ci banque tëral ko fa tëdd di nelaw sa njaboot di lekk yow ngay lekk nga bàyyi baa doole yi ci ginnaaw ma am na beneen affaire bi nga xam ne seetlu waaw réew mi itam mhm. bëgg nañ fo torop waaw xam nga am na kenn baal ma nag Chérif ma jël ci nekk ci ligne bi allo mhm. salaam soxna si naa def maa ngi sant yàlla bu baax sëñ bi ñu ngi lay ziar bu wér mbaa yaa am jàmm ngi sant bu baax a baax tur bi naka la kii Njaga Mbay lañ koy wax sëñ Njaga foo ñuy woowee man maa ngi lay woowee si région Kaffrine. dëgg la sëñ Balla commune commune Diama Gadio. macha allah macha allah ñu ngi ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. man de léegi lay déglu seen émission bi maa ngi nii toog ko xoolaan ci télé bi. dëgg la. kontaan ci lool. jërëjëf jërëjëf sëñ Ndiaga. émission bi wax dëgg yàlla neex na lool. non jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf. am na solo bu baax a baax a baax. ñu ngi lay jaajëfal ban jàngat nga ci am. Ah, ah di leen sant rek. di mhm. leen gërëm bu baax ci émission bi. jërëjëf jërëjëf waay. wax dëgg yàlla am na solo lool lool lool lool. jërëjëf jërëjëf sëñ Ndiaga. Eh, réew mi xanaa réew mu métti rek. Hmm. wallaay métti na. wallaay réew mi lool lool lool lool. wallaay hmm. yàlla dimbale ba gën a neex rek. allahumma amiin dina ñëw incha allah. bu soobee yàlla yàlla na yàlla na lépp. ñu ngi nuyu waa kafrin yëpp ñoom tamit réew mi metti na je pense que loolu mooy slogan bi léegi xam nga lu fi lu ko gën a métti loo mm. dafa am lu fi tumu rànke mm-hmm. yërmande mm. dimbaliwu leen ngir yàlla mm. ak ragal yàlla mm-hmm. ayda loolu dafa tumu rànke si te gis nga lu baax mm-hmm. fépp fu mu toxu safaan bi ñëw jël place toog xam nga lu fi toll réew mi fu mu nekk nii bopp sa bopp ah. mën sa moroom duma ak rokki mi rokki defal ma ma defal la mag ñu njëkk ñi mhm. lu nu tanee nitu tey yi mhm. mag ñu njëkk ñi dañ daan bàyyi xel su nit mhm. mag ñu njëkk ñi dañ daan am kersa ba ñuy sàggan ba nit toog leen di soxla dañ daan am kersa ndax dañu kii kat waroon nañ ko seetlu xam ni kii kat am jamono dab na ko ba ñu dimbali ko jël ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. Ah, ñu ngi sant alhamdulilah jàmm rek. tur bi naka la. ñu ngi ñu ngi delloo ziar bu wér a bi naka la allo. waaw moom dafa mel dafa am problème réseau mën na dellu si waat Chérif waaw mais gis nga léegi ñàkk yërmande googu. Mm. nekk si réew mi. Mm-hmm. loolu laa ga loolu moo doy waar. mag ñu ñëk ñi dañ lay sarax te do yalba wallahi mais légui da ngay yalwaan te kenn du la sarax nit ñi duñu bàyyeetuñu xel ci seen morom ak ci seen dimbal deug la mag ñëk ñi na jëk jëk rek dajale mhm. di sédalé di mhm. sédalé di sédalé di sédalé bam jeex nak dan dan daan wax mag ñu ñëk ñi mhm. nit ku baax day fagu alal bu lew wallahi ba paré nangu ko sédalé te nangu ci gëna a deug la Sénégal ya sayda xam nga lu tax mu metti jamono bu ñëk da ngay jiro ma bok ndab ya sayda yaa yaa seydaa am fukki dank mhm. yow nga am juróom man ma am ñett mhm. mais léegi nag xam nga lan la mhm. yaa seydaa dëgg day këf bool bi daw wallaahi doy <laughs> nag boo këfee bool bi daw maanaam mooy dangay jël lépp te doo desal dara te gis nga ku ku ku boo nekk ak ay nit boo jëlee seen cër jël seen wàll am na ñoo xam ne balaa ngaa yóbbu seen wàll daal la dab te buñ la dabee jotuñu la. luñ forsaani luñ forsaani la. parce que loolu mooy indi problème violence bi. nit ñi dañuy dem ba sës. jéngu nit ñi amatuñu le minimum vital. lu nu lekk lu nu naan da gis benn booy bu yeew san franc bu mu jëndee euh, fanweer dërëm bu mu jëndee benn. Euh, kii benn café fukki dërëm mm-hmm. ak ak beñe dugub mm-hmm. am na benn kii bi nga xam ne benn booy mu xam mun ma père man da bàyyi naa ndékki mun ma mun man ko wàll tax mun ma tax bés bu nekk mun ma jox sama bopp ndékki ma génne ko sama xel bàyyi ko benn bi léegi da ngay gis ay borom fonde ak borom cere mm-hmm. diggante timis ak gée boo yéexee séeréer yi ñoo la fay jiitu mm. doo gis fondé doo gis càkri wallaahi doo gis nëtëri lépp la ñu jël dëgg la dëgg la ñoom loolu dafa jaaxal ah, ah, ah. wala si si jiitu ko fa jënd lépp <laughs> day na waar mais loolu sax minimum googu sax nit ñi amatuñ ko ay problème onde hmm. cent francs fukki dërëm Boy ko ñi da ngay dajale juróom-ñeent xale yi toog boo làmboon seen poos hmm. téeméer dërëm bu mat wala 1000 francs doo ko génne si juróom-ñeent xale yi góor yoo xam ku nekk am nga ñaar fekk at heure bi waroon na la fekk nga am sa sa sa sa sa soxna. ba tuddee sa waajur wala sa sëriñ doom. yow nga nekk si benn koñ am 25 cinq am 30 ans. boo yeewoo loo ndékkeek loo añe boo lijjantee ndékki. añ bi sotteegul nga lijjanti añ. reer moom amul sax borom kër yi bàyyi nañ ko jox amatuñu fonde bi la ñuy kenn jaay fonde ci koñ bi. ak kiy jaay cere ñooy gën a jaar la. reer moom kenn toggatu ko parce que kenn reer bi da dafa metti. dèjà boo demee di jënd yàpp dañ naan la yàpp bi dafa dafa dafa kilo dafa dafa

yow nga jël yow directeur bi. Mm-hmm. nga jënd hôpital bi jël hôpital bi. jël ay boo essence yi nga xam ne. Mm. Eh, am juróom ñeent ambulance yu fa nekk sax. Mm. yow yow mi directeur général. Mm-hmm. hôpital bi la ngay consommer essence ambulance sax. des fois jeunes yi dañ naa la dem deewi sax moo ma gën a. del waaw ba pare gis nga léeg-léeg ay nga gis. Euh, mm-hmm. man léeg-léeg na ma yàlla jege ma dugg benn koñ. gis jeunes yëpp nekk ci biti. toog ci baaw buntu. jeunes yi waaw. daal di ñii ñi ngi attaaya. man ñaare. Mm-hmm. léeg-léeg ma dugg ci koñ ci yenn euh, quartier yi nga xamante dafa populaire. Mm-hmm. damay ragal damay ragal. ñu jël ki ci ligne bi allo. Mm-hmm. allo. allo aleykum allo. waaye Seyda. waaw macha allah taala xam nga tax may ragal. dama naan vraiment euh, xale warul toog toogaayu mbedd. heure bi dafa waroon fekk xale yi dem liggéey yi wala ñu dem jàngi mhm. wala ñu am benn occupation parce que bu njëkk ba mhm. maire yeeg paa yi nga daan gis xaa maa ngi toog ci buntu kër gi féexlu loolu mhm. nga daan gis mais léegi jeunes yi ñooy nekk ci mbedd yi fees ko dell. Mm. ba da ngay mujjee sax jaaxle. Mm-hmm. te ndeysaan léeg-léeg damay ragal bu pare dama leen damay am ci ñoom ñeewante. ñeewante wallaay dama leen di ñeewante. dama daan xoolal lii xam ne jaar am na xamante ne dañoo jàng ba yey këyit jeexal tàkk. Mm-hmm. université am na sama benn koo xamante ne soo mosaan dem faan am fa malade wala ma am fa soxla. Mm-hmm. ci moom laa daan ndékkee benn kantinam la yor boo waxee mu ne ma ndékki laay am naa mas de diplôme bu ne am na hmm. mais foofu la toog di jaay ndekkee. Hmm. ma ni ko da ngay xool lii te normalement li ma wax sànk rek. gouvernement bi war nañ cee def jàngat. Hmm. di saytu xale yi. wala ñi nga xamante ay responsable lañ nekk ci biir gox goxaat yi. di di comme na mag ña daan def. bu ñu gisee nit ku ñëw ñu ne la am nga doom majeur. wala am nga doom bu am nàngam. te nag am na koy def de. am na ñoo xamante ne sa doom lu am ndax am na bac. wala am na nangam ndax mënuñu koo dugal fenn ndax mu liggéey loolooy dimbalante li alquran naan taawunu alal birri wa taqwa mm. wala taawunu alal ismi wal udwan comme sama émission boobu rek macha allah taala dimbalante bi mm-hmm. dimbale leen dimbalante leen ci ragal yàlla ak mbaax mm-hmm. waaye bu leen dimbalante ci contraire u mbaax mm-hmm. ak ñeme yàlla macha allah taala parce que fekkente ne yow lu ñëw Euh, nga ni ko foofu. wallaahi euh, ndax yàlla bu la joxee benn. mën na yem ci yow waaye bu la joxee junni dalaa séddale loo. waaye jox la junni. Mhm. nga xañ ñi nga xamante ne ñoom nga war a jox. Mhm. daal di jël denc loolu dul dëgg xam nga lislaam lu mu wax mu ne soo amee nanga ci jël yow. Mhm. jëfandikoo ko. na nga ci denc mhm. na nga ko xaaj ñetti parti na nga ci dimbalee mhm. waaye boo bëggee boole la nga war a dimbalee ak li nga war a denc daal di koy denc <coughs> jël li nga lekk rek moo tax lu nekk di xew nag ay soxna ay da léeg nga nit gis nit feebara feebara feebar ba macha allah doo jël xaalis bi daal di koy fajoo gis nga xelu nit kenn du ko lekk déedéet xelu nit kenn du ko lekk lu ñëpp bokk wallaahi lu ñëpp bokk danga koy séddale dëgg la ba pare lu ñëpp bokk lu nekk ku ne ma nga ca waaye lu ñu ni la jox dénk rek nga daal di ni ko fuuf hmm. képp ku ko ciy def ci jamono bii hmm. macha allahu taala doo xam fooy mujje te mujj gu rafet ci àdduna ngay dund hmm. am mujj gu rafet léeg nga gis koo xamante ne dina am téeméeri at wala mu jege téeméeri at euh, am ñu ko jàppale am ñu ko dimbali njabootam daal di koy bëgg téye ko bu feebaree ñu daw ñu ngi xool lekkam ñi ngi xool macha allah taala ñu ngi nuyu suñu papa xaaj mbay te Mbaye mm. tabarkalla macha allah taala lu baax lu ne def ko ci réew mi yàlla yàlla gën a dolli gudd fanam ak mm. wéram di ko jaale doomam jooju génnoon àdduna passé ndeysaan wallaay doom bu góor dafa génnoon àdduna ñu ngi koy jaale bu baax a baax ak suñu papa Maxtaar Mbaw mm. ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax ay da soxna dabake bi mii wax dëgg yàlla mm-hmm. maa moom a daan jàng ca Pape Aliou Niang ak Serigne Mbaye euh, Babacar. ndeysaan sa xarit maam papa Serigne Bay Abdou wallaay ndeysaan wallaay waaw di nuyu Ndey Marème si bu baax ak ñoom soxna laal la ñang. dëgg la dëgg la yëpp ñoo ngi leen di nuyu waaye wax dëgg yàlla day Euh, clandestin bii day mhm. ayda mhm. li da baka bee wax rek yërëmtalu na wallaahi yërëmtalu na ndax ku jur yërëm mhm. te ku jënd sakkanal wallaahi ndeysaan macha allahu taala yërëmtalu daf ñu dab yaa seyda waaw damay jaare fii tàggoo nañu dimbali njaboot gi ndax njaboot gi sonn nañ jàq nañ jaxle nañ euh, xamatuñu nu ñuy def xamatuñu fu ñuy teg seen tànk dañuy bàyyi violence bi ñuy teg njaboot gi ak ñu bàyyi concurrent bi ñuy def ci diggante njaboot gi ci ñi ci koñ bi ndax euh, wërsëg euh, yamul mhm. alquran dane wa ma min daabati fil ardi illa ala allahi rizquha wallaahi na képp koy dund ci kaw suuf di nooyi rek mhm. yàlla moom moo yor sa wërsëg mhm. kon nañu gëm tam wërsëg du benn waaye nag nañu góor góorgóorlu ci liggéey bi dégg ndigalu waajur yi teg suñu tànk ci njub yàlla mën ñoo dimbali macha allah taala di nuyu soxna Liti Sall mhm. suñu ami d'enfance yooyu ak ñoom uh, soxna ajaratu ndey kurambaay di ko jaale borom këram boobu mhm. génn àdduna di sëriñ mbow yàlla na ko dëddoog jàmm ci dara ji Seyduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam di nuyu ki ma solo lii rek muy Sophie Dieye di jabar ci Alaaji Baye Fall Mbuub bu ñoom Sëriñ Madine Mbuub maa ngi leen di nuyu ak ñoom tonton Njoogu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf kooku di yaa Seyda ñu ngi lay jaajëfal baax Chérif heure bee ñu xoj waaw gis nga heure bee ñu xoj soxna Ayda mais lu may bàyyi xel itam ñi nga xam ne yàlla dénkoon na leen réew yow nga leba leba leba leb ba nga xam ne la ngay fay si bor Sénégal mun yëpp 18 million d'habitants yi mën nañ ci dund juróomi at la nga leb ci bor dem ba nga xam ne réew at weer bu nekk nga fay mille milliards si bor day mel na yow nga amoon sa ay doom rek nekk boroom kër nga leb bu boo génnee àddina au lieu sa doom yi donn la ay kër wala don la ay tool wala don la alal sa doom yi dañ lay donn ay bor hmm. dañ leen di bor ndax ñoom ñoo la bu doon alal dañ la koy donne léegi boo demee am bor sa doom yow ëllëg ñu doon la ay problème la la la doon man d'accord naa sax nga lépp xaalis pour dara hmm. mais lépp xaalis tey yóbbe ko Dubaay hmm. dem du noos ànd ak ay jigéen ñi top sen bakkan jënd ay auto 200 millions Sénégal mm. li dañ wara téré Sénégal ku fi dawal auto 200 millions lo am am ala dañ la ko wara téré mm. parce que aussi mu am benen problème bi fi dugg mm-hmm. te nit ñang kay ñak audité nga xamné day gëna yok ndol mi moy faux faux billet mm-hmm. ak drogue bi Sénégal mm-hmm. surtout da ngay gis drogue bi Sénégal ñu lay wax ay tonne cocaïne dugg na fi Sénégal chaque semaine ñu wax la ay milliards faux billets tonne cocaïne. xam nga benn boule cocaïne bi nga xam ni. Mm. Euh, par exemple nga mel ni ci ciw bulet. Mm. bulet bu day noonu. cent mille lay jar. léegi euh, loolu boo si amoon benn dank rek. Mm. day mel yaa ngi dank trois millions si si si léegi imaginer lu mat ay centaine de tonnes dizaine de tonnes dugg Sénégal. Mm-hmm. kon am na lu xew si réew mi. Mm-hmm. te loolu mënu fi dugg te amul. Mm-hmm. ñi nga xam ni ña nga sa kaw ñoo ko jàllale. ña ko waroon tere. et puis ñu ni par exemple ñaari tonne or genn na si réew mi ah, war nañ sétat ga sey toat réew mi wallahi deug la jub daal yalla nañu yalla jubal allahumma amin ragal yalla amin ñu am ngir yalla amin yërmande delu ci fi amin amin euh deug delu ci fi amin amin ñu xamni alal ñu xamni alal bu lew ñent la deug la lo liggey mhm. lo ñak mhm. lu la may wala lo doon mhm. ñu yemele fofu suñu bopp ragal yalla sét ndax ngir ak bi nga xamni ruubal alalu jàmbur moo koy indi ñuy wax ay sans abri yeeg nit ñi amatul lu ñuy fajoo xale yi amatul lu ñu jàng mm-hmm. tali yi baaxatul mm-hmm. ndax la ñëpp doon bokk benn nit moo ko aakimoo loolu moom bokk na su lu lu ndax euh, immigration clandestine du problème mm-hmm. conséquence la jeexital la ce n'est pas un problème du jafe-jafe de conséquence la du problème. jërëjëf kooku di Chérif ci euh, xam-xam bi jërëjëf yaa Seyda euh, di leen jox daje demee incha allah ki ma solo nag di sama bàjjan ndey Mariane Sall moom nga xamante ne xalif la ci Seyda Ahmed si moom moom ma solo cuub bii dama ayda boo demee nga sol ko bàjjan yàgg fi lool te ànd ak wér Sall tafsir Omar Sall ma ca marmiyal maa ngi lay ñaanal fan wu gudd yàlla bàyyi la fii ci sunu kanam ci darajay sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may jàllaba diwaan wi jàmmalaay di nuyu yaay Zeynab Cissé maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko jox wàcc waayam di nuyu aussi Tadaba Sarr foofu ci diwaanu rue 15 ku bëgg Malikia TV sama tante ju baax jooju sama yaay jooju maa ngi lay nuyu bu baax ak sama seexu yàlla yooyu maa ngi leen di bisou di nuyu sama rakk yi maam Ahmedine Sall Fatou aussi maam Khalifa Sall maa ngi leen di nuyu di nuyu sama jabar yu baax yooyu kooku di madame Sall Aïcha Anne ak madame Sall Koura foofu ci diwaanu jàmmalaay maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay du nuyu wàccuwaawoon yëpp di nuyu sam bàjjan bi fi woote nuyu soxna Daba Kebe nuyu naa la bu baax jox la sa wàccuwaay madame Sall yaa Nabou Guèye foofu ci diwaanu Tiwaawan nuyu naa la Amita Guèye maa ngi leen nuyu ak Daba Guèye ak euh, asi foofu ci diwaanu Tiwaawan di nuyu aussi sama maam sëñ Mbay si Abdou di nuyu aussi soxna Fat si sama cousine bu baax boobule di nuyu képp nga xamante ni yaa ngi foofu ci diwaanu Tiwaawan soxna Oumou Xayri si soxna Oumou Xayri si maa ngi koy nuyu bu baax soxna Oumou Xayri si Euh, bu borom daara ji ak soxna Safiatou si borom daara ji di nuyu aussi sëñ Mansour si da baax maa ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waaye di nuyu aussi sama papa sama xarit sëriñ Pape Samba Ndiaye alquran maa ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waaye dina ñaanal fan wu gudd ak wér sama papa jooju di leen jox daje dem incha allah ci seen beneen numéro euh, jamonoy tey toujours ngeen onoon si ak Aïda bu sëriñ Babacar si. jooy neex te sell di bégal njaboot gi moo leen doon may sin émission